di yambari yambari di tuumaal ay nit dara kooku bu wàccee rek nga wàcc ci suuf mm-hmm. waaw loolu la rek gëm yàlla daal moo existé moo wóor man yàlla laa yaakaar mm-hmm. moom laa gëm moom laay topp moom laay sukkal moom laay raamal moom laay sujootal moom laay périel mm-hmm. parce que daf koo jaar gis nañu aussi nguuram Euh, donte woowu la fee njeexitalu nguuram nekkoon njeexital bu xaw a tàng deret yu bëri tuur ay ñu bëri ñàkk ci seen bakkan deret ji moom waxoon naa ko bien avant avant corona bi laa ko ne day tuur deret ci tali bi hmm. bu ñu tuurul deret yi nag deret nit dina tuuru hmm. man nekkalu ma fi A wala wala wala Z hmm. ñëpp laa fi nekkal waaw man yàlla yàlla rek moom ma may sama xam-xam mu naturel xalaatoo woon ne dig ma fekk ci waañ bi Oke, kay ni ma tol ni ni la tol ni la duggé ci wañ bi mom laal mom lay wax ak yow. xam-xam nak du juroom ñaari garaam bubu du juroom ñaari musóor xam-xam day nek ci deret yap ak deret ak ndox ak yaax ci lay ne. waaw kay xép nit mo baaxul di nga xép sa xal mu lak sa dàgg. kon daal japp nga ne mom lo nañ ko artu la defuñu ko après mu dal suñ ko ah waaw waaw la war a def defoo ko boo xeebee sa xal mu lakk sa dàgg rek benn xal mën mënta taal sama kër te yow nga am kërug ñax seetaanal balaa cinq minutes nga xool di nga ko bëgg a fay mu tëla danga ci ñàkk lu bari loolu gise la tey moom dem na am na ko wutu président Bassirou Diomaye Faye mhm. gisoon nga ko avant moo ñëw wala élection bi gis naa Bassirou Diomaye mhm. sëñ Moustapha Sy moo tax waxuma billaahi laa am comme jullit wallahi tallahi yàlla seede na ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallahi gis naa ba Bassirou Diomaye fay ci kaw asamaan si Pape Sow taalibe sëñ Moustapha Sy la moo tax ma gis sëñ Moustapha Sy Pape Sow mhm. lañ koy woowee moo tax ma gis sëñ Moustapha Sy fekk naa ko ci kaw si ci suba muy liggéey ndax moo ma yëkkati troisième étage noonu. Mm-hmm. ci laa ko ne Pape mu ne ah ma ko bakkanu sëñ Moustapha moo tax duma wax élection yi waaye élection yi ñaar dong la mu ne ma bi yoon dañuy gañe man ne ko déedéet sëñ Moustapha Sy yàlla bëggul mu politique. Mm-hmm. man maa ko wax parce que sama kóllëre la. Mm-hmm. sëñ Moustapha Sy mu ne am ah, ma ne ko yàlla bëggul mu politique. candidat bi du du doon président la mu ne ma ëpp naa def bi yoon wute naa ak ma ne ko wallaahi suma wallaahi suma wallaahi doon président. man ne ko kii bi ñaari nit la ñaar muy Amadou Ba ak Jomaay te wallaahi mu ne ah man ne ko wallaahi mu ne ah ma ne ko wallaahi ah, Jomaay daal di teen ci asamaan ci xool ko ci nuage yi mu génn ma ne ko Jomaay mooy gañe mun ne ma hee déedéet ñun dañuy gañe ma ne ko nañ dem sëñ Moustapha yi nag moo tax man du ma wax waaye bu nekk nekkuloon sëñ Moustapha yi candidat am bokk na ci barakati laa ilaha illa allah dinaa leen Jomaay mooy gañe bi mu gañee jomaay bi mu gañee Pape Sow guddi dafa maa woo hmm. ne ma Selbé ma ne ah mu ne ma gëwuma la woon waaye maa ngi lay doog gëm ku ma waxoon ne maanaam sunu candidat bi sëñ Moustapha Sy teg du gañe ma ne la du dëgg hmm. waaye tey de maa ngi lay doog a gëm alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu baax. tey Diomaye gagné na. ànd ak Sonko di gouverner tey est-ce que yooyu ñi nga xam ne yàlla def leen di may ngeen am leen loo xam ne leen koy gis ci kanam. Mhm. est-ce que mën nañoo xaar mu am benn nguur goo xamante ni nguur gu dal lay doon. waaw xam nga benn man Selbé Ndom. Mhm. kese maa fi waxoon ne ñëpp dañu waxoon Ousmane Sonko mooy nekk président. Mhm. ñëpp Serigne Seck ñëpp waxoon Ousmane Sonko mooy nekk président benn man Selbé Ndom ñaa dama njéeme tungaan joomaay mii man dong maa ne Ousmane Sonko du nekk président te maanaam du bokk élection billahi wallahi taala Ousmane Sonko mi ngi may mi ngi may dégg waaye bañ ko tëjee nee leen maa ko mën a génne dina génne boor bii jëm boor bii mooy ministre bi mu doon dina génne fii dem fii benn man Selbé maa ko fa wax alhamdulilah Ousmane Sonko xam na bu baax maanaam jomaay bu fekkente ne président jomaay bu nekkee bëgg na nguuram neex nay sol mbaxane man Selbé Ndom maa ko wax bu bëggee nguuram neex li ci bëgg mu am ko ci nay sol mbaxane jomaay laa wax de waxuma Ousmane Sonko na sol mbaxane de Bassirou Diomaye Faye le président de la République du Sénégal le nouveau président de la République su bëggee ndi nguuram neex baawaan saawaan li mu bëgg mu am ko nay sol mbaxane wax naa ko monsieur le maire Bara Gaye borom yëmbal tubaarikàlla kooku yal na doon président Bara Gaye yàlla na doon président parce que ni mu nekk maire nii rek day mi mingi mi ngi rukk dëkk bi ba mu nooy mi ngi tabax ay stade Bara ngi tabax ay marché tubaarikàlla moo tax mu am deuxième mandat maire bi nekkoon yëmbal la te def fi dara amul de amul dara de amul deuxième mandat de premier mandat bi sax bëggoon na mu gaaw a jeex kon maanaam baara Gaye maa ngi koy nuyu au passage mon frère de valeur. Hmm. vraiment maa ngi koy nuyu di ko ziyaara ndax man bi may xam Bara boobu ma nga ca PDS. Hmm. nekk xale bu ndaw tuuti bay bëgg a dee. Hmm. ak ñoom jeeju ma tubaari kàlla waa PDS yi. bëgg ma lool may invité Bara fii koor mu fi ndogu see sama kër boobu jëndaguma kër. mu fiy ndogu si tubaari kàlla même fii ci kër gi sax Bara ñëw na fi. yàlla def ko maire muy dimbale handicapé yi baara ku nekk lay dimbale maa ngi koy ñaanal daraje laa ilaha illallah lépp lu mu bëgg rek sunu borom defal ko ko daraje yonent bi wax nga ko sànq ne nga joomaay bu bëggee nguuram ne faw muy sol mbaxanda mhm. ak lan leneen looy digal joomaay non mbaxanda rek président joomaay bu bëggee nguuram neex mhm. sénégalais yi kontaan li mu ci bëgg mu def ko ci mhm. ne sol mbaxane rek mbaxane mbaxane bu gudd rek la war di sol mbaxane bu gudd rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ne sol yëre olof di sol mbaxane. gis nañu yëre yi moom de presque moom lay faral di sol jamono jii. na na ki teg mbaxane rek bopp neen arrangé wu ko keroog wax naa ko Baara Gueye. Mhm. Baara Gueye nee na ma jomaay sama xarit la ma ne ko nay sol mbaxane. Mhm. mu ne tekk ne ma mbaxane ma ne waaw xam naa a ko wax ba ku ku ko dégg rek. jottali ko ko set kat bi nga xamne yalla mo defone mu wax ne Ousmane Sonko du nek president du bok election te serigne bu ne prédire na fi ne ne Ousmane Sonko mo nek president ba japp dat ba boba sax election amu ca yalla mi nga xamne dara tawuko ah def lama waxone yalla yalla jox mako du dama bañ président euh, ki du du du dama bañ premier ministre bañu mhm. Ken du bañ doomu adamama Mm-hmm. Ah, waaye gisumoon mu nekk président mm-hmm. waaw maanaam Bassirou Diomaye Faye bu bëggee nguuram neex mm-hmm. muy satisfaire réew mi nay sol mbaxane man Selbé Ndom maa ko wax geste bi moom moom président de la république sax tey li ñuy xaar ci moom bëri na ay wàññi tey dund askan wi ak mbooloo mi nga xam ne topp nañ ko tey loolu lan moo ko def si nga na dimbale na dimbale commerçant yi nga xam ne dañ leen jëlee seen place yi ci nañ leen dimbali xam naa liggéey rek moo ko tax a jóg mhm. mais boo dindee nit fenn dafa am foo koy teg waaye dindi nit ba pare bàyyi ko te muy toog samay toog di nit ñi di ko fekk muy liggéey mhm. mën a am dépasse mu yóbbu këram nga daal di xëy xëy rek daal di koy dindi mhm. ah nekkul loo xam ne maanaam lu lu lu baax la daal waaw mbokk internet ñu fàttali leen ko tey wax comme ni ma koy waxee maman Selbé lañ dalal tey waxtaan ak moom li nga xamante ni nag moo di soxla askan wi waaye tamit li nga xamante ni ne moom lay daal di liggéey mu di wàllum seet gis ngeen ko dégg ngeen ko si kàddu yi nga xamante ni wax nañ ko yéen ñi nga xamante ni yéen a ko yiitewoo wala soxla ko tamit numéro am dana nekk ci ci ci écran bi mooy ci écran bi da ko am ah, boo leen ko woowee da ngeen ko jot aussi ngeen daal di ko di seen soxla mu fajal leen ko. maman bu ma ñëwaatee sànq ci li nga xamante ni wax nañ ko euh, ci wàllum président la république Diomaye. fan yi mama nemmeeku nañu li nga xamante ne moo di wàllum accident xaw a bëri wala sax jéey yi ndax ay lakk ay accident lan moo waral waa waaw accident yi moom.